dafa nekk tiis boo xam ni dafa dal ci askanu Sénégal te baaxoo nañu itam parfois ni ko acteurs politiques yi di defee ñu gis lu mel noonu mu mel ni daal euh, associé wu ngeen ci tiis wi peut-être mu échappé ma wala da ngeen ko deful wala lan moo ci am. est-ce que bi nga may invité Birame Souleye nga invité wala administrateur général nga invité euh, je pense que invité wu ma parce que Birame Souleye laa tudd da ma invité parce que je suis dans Pastef bi may ubbi samay kàddu maa ngi jébbale njaal bi bu loolu bul doyul xamul lan mooy doyati. ah sëñ bi yow li ma la laaj ak li nga wax dafa mel ni yàlla ak yàlla yi. parce que non parce que tey est-ce que mën nga ma wax ni kon lépp loo fi wax dafay engagé parti bi. mais boo ma fi invité fii. non xam nga loolu biram loolu kenn werantewu ko eh, kenn werantewul li nga wax mais dama ni lu jiitu ngay toog fii tiis bi mi ngi am war na def presque soixante douze heures wala plus boobaak léegi kon yéen a ngi ciy doog wax. Papa Ngagne waaw dama ni. waaw fii invité ma parce que Birame Souleye laa tudd. da ma invité parce que je suis membre d'un parti politique qui s'appelle PASTEF j'en suis l'administrateur général aujourd'hui ba ma fi invité lu ma fi wax PASTEF la concerné mhm. j'ai élevé ma parole pour prier pour le repos de leur âme xam loolu war na laa doy nag ok non ah, foofu la si mën a cest dire mën mën na ma doy mais lu ma war a mën a taxaw xoolaat ko la parce que bu fekkente ni tey da toog ba heure bi kon bu ñu la invité wutoon du ngeen ci wax euh, yow sa information sa niveau d'information foofu la toll foofu la sa niveau d' information toll yow. waaw waaw lu tax nga wax loolu. parce que daf may dama ko gisul wala daf ma échappé wala da ko def. da nga ko gisul waaw ko gisul moo tax. fan ngeen ko defee. Euh, yow yaay nekk ci presse yow yaa war a di informé wu. waaw mais attends yow dama bëgg nga informé ñi lay seetaan. Birame man sama information am fan la Papa Ngagne. waaw ci wax asalaamaaleykum sama ñaan bu fekkee ni doyul man njaboot gi lay jaale du yow lay jaale organe de presse lay jaale sama njaal bu fii dama à la. aux condoléances que tu as présentées mun ma wax leneen lu dul loolu. mun ma wax leneen lu dul loolu mais biram yow soo commencé nii émission bi ci défensif est-ce que yaakaar nga dinañ wax lu nit ñi dégg. non mais attention attention. waaw c'est que lan nga bëgg ci njaal. yow mooy parti politique. bi nga xam ni mooy. Pastef ñaata ñaata parti politique ñoom Sénégal. non xam nga no xam nga yow laa ci invité non non attends attends euh, parti politique yi am ci Sénégal trois cent et quelques la. Ah. fi ah. kenn na fi waaw. au nom de Pastef waaw ah. léegi laaj boobu mënu ma ko laaj ñëpp laa koy laaj mais Papa Ngagne yow tey mën nga ma laaj ci leneen may wax nga ne ma noonu loolu sa wax la wala waxu Pastef la waaw tey boo ma nee ndax courant am na Sénégal tey su ma toogee fi nga ne ma ndax courant am na Sénégal su ma la tontoo mais du Birame Souleye moo la tontu je précise encore que je ne suis pas venu ici ñëw ma fi intuitu personnel maanaam ci sama tur man Birame Souleye bu doon loolu doo ma soxla bu doon Birame Souleye rek Birame Souleye tekkiwul dara amul benn daraja amul benn maanaa su ma fi ñëwee tey Pastef laa fi représenté bi ma fi ñëwee toog li am solo ba am solo mooy maa ngi yëkkati ay kàddu njaal di ko jébbale ci seen ci ci njaboot yi mais man mënu ma weesu loolu yàlla dégluwul communiqué yàlla dégluwul euh, ay tract yu ñuy lancé yàlla kàddu lay déglu ñaan lay déglu sama ñaan dem na mënuñu weesu loolu. ok alors yaa ngi ci liberté provisoire ce leader mi ngi.